wàllum ubbeeku jamono ji euh, moom doy na waa mhm. jamono ji yaakaar naa bu njëkk bu nit tëjoo day yéem nit ñi waaye fi ne bu nit bu nit ubbi ko. Mhm. <laughs> day yéem nit ñi gars yi boo dawalee oto bu rafet nii saa waay moom fu mu jëlee xaalis. Mhm. léegi maanaam am xaalis daal léegi problème la ci dëkk bi waaw. <laughs> te maa gars yi dañoo tëju daal. dëgg la dëgg la maanaam loolu lu am la. fi ne nii boo gisee li waral loolu mooy euh, maanaam am ami léegi comme ni ngay gisee nit ki mi ngi nekk ci ay jafe-jafe di dóor dàq di jugoo ko daal jékki-jékki maanaam am hmm. am maanaam loolu yéem la loolu mën a am la noonu noonu ni ñuy gisee nit ki am ba ci yàgg mu ñàkk hmm. noonu noonu ko nit ñi comprendre xam ni lu am la noonu it lañ war a mën a comprendre maanaam ñàkk ba ci yàgg nga am it dafa loolu day lu war a mën a am amee rek ñu day dóor de waaye léegi ki am ba ci pare nag ñàkk xanaa moo waru woon a ñàkk <laughs> maanaam ki nga xamante ni maanaam góorgóorlu na ba am am lu yàgg ba ci yàgg mu jékki-jékki ñàkk xanaa kooku warut a ñàkk hmm. léegi ki nga xamante ni maanaam dafa ñàkk ba ci yàgg amit kooku xanaa warut a am mbir mi du foofu maanaam nit ñi nañu jëllawaat seen ci yàlla te xamante ni maanaam mbirum ñaan lu am la hmm. man de wallaahi la asim laa lay jël li may wax ni mën naa koo kitaabu hmm. laa koo xamante ni maanaam ku bokk ci famille bu mag laa am soxna ami njaboot te lépp lu may wax nga ne maanaam danaa ci seet sama diggante yàlla hmm. nit ki moom bu fekkee ni maanaam bëgg nga ubbi ko ci wàllum am am hmm. gis naa ko ci Seex Xaadim boo jëflantee ñun kenn mënu laatee am waaw te lañ lay defee lu ñuy garanti lay doon nañ la koy waxee nañ koy defee bu ñu ko defee noonu gisee woon nañ la ko waxee dikkal la nga ñu joxoon ñu delloo la ko ci jàmm ak salaam ak ak loo mënti liggéey maanaam ngay mécanicien wala ngay menuisier métallique wala ngay commerçant mën nga cee jaari ubbeeku loo mën a yëngatu business boo mën a yëngatu moo xam da ngay jaay atoog hmm. maanaam it da ngay tukkeeg loo mën a def loo mën a doon loo xamante ni maanaam lu ñuy liggéey la hmm. suñu borom dimbali na la ba yaa ngi ci yoon hmm. soo jëflanteeg ñun des na la teg yoon boo xamante ni maanaam kenn mënu laa ci am di nga am bu baax a baax tey ci alxuraan karim nañ koy liggéey maanaam mbir mi dafa toll foo xamante ni dañ ko war a seetantal hmm. teg ko ci yoon mooy li ma ni maanaam bu ñu la defalee li ñu lay defal gisoo ko nga dikk ñu jox la ñu jox la la nga nu joxoon bu ko ñëpp doon def léegi fi mu ne ni mbir mi day leer ndax ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci mbir mi di dóor def lu ñu xamul dañuy génn dem toogi ji na le légui nak ñu xam dik sëriñ su bare bare buñ la xasse bo na xasse jot téléphone ba nga envoyé ci xaaliss mhm. doto leen jotati lolu problème kenn xamul fuñ dëkk ci Dakar bu tay ñi ngi Dakar bu suba ñi ngi Louga ginaaw suba ñi nga kaw la xamul fu fuñ dëkk dañu nekkul ci dëgg manam dañu nekkul ci li nga xamanteni mo ci dëgg tay nak ben affaire it doon lo xamanteni lu mata bayyi xel la manam dëgg yag yag yag fen du sulu dëgg hmm it yag yag yag mënut a fexe ba fété dëgg kaw hmm. mooy waral maanaam buñ booñ récupéré li nga yor ba pare dootoo leen gis ndax lañ la lañ wootee ba wax ko ni mën nañ ko mënuñu ko mhm. ñoom dañoo jug ngir maanaam laneen d'accord ngir lijjanti ko ci mbir mi mhm. ñoom nag ñoo ñoo toll ñoo toll jamono joo xam nag fi ñu ne ni ñoo commencé mbir mi léegi nag ñeneen ñi mel ni man ak suñ classe gii ñun ñoo war a jug maanaam mbir mi ñu teg ko ci yoon maanaam ñi xam te man waaw ñi ci bokkul te mën ñu maanaam ñi ci nekk te mënuñu nu génn ndax saako pombiteer boo gis bu ne bu ci benn pombiteer bu yàqu nekk ñu bàyyi ko ci day yàqaale yëpp mooy dem wala maanaam généraliser ji ndax léeg-léeg nga dugg ci internet bi gis koo xamante ni maanaam day saaga te buy saaga sëriñ sëpp lay généraliser ñoom ñëpp yam lay wax mhm. saaga mhm. léegi nag moo tax fi ne ni man la boo wàllu ubbiku bu dee alal rek la ñor nga bëgg ko mhm. suñu borom soo tax laa dogal ñu waxtaan ci lañ lay liggéeyal ñu liggéeyal ko kenn mënu laa am kenn mënu laa tee dégg maanaam di nga siiw di nga ubbiku lañ la waxit maanaam boo dikkee ñu jëflantee noonu gisee ko nañ la ko waxee hmm. dikkal la nga nu joxoon ñu delloo la ko ci jàmm ak salaam bu ñëpp dee def noonu léegi mbir mi lijjantiku loolu leer na waaw euh, sëñ Fallou kon euh, jaaro jaaro yi ngay joxe mhm. euh, ci loolu ci lan lay dox jaaro dama ci liggéey loo xamante ni wàllum alal kese ko tax a maanaam wàllum alal hmm. moo xam da bëgg am ak ci loo mën a yëngatu lu ma mën a doon sa loxo bi moom suñu borom sa taala dina dogal di nga am moom ci jàmm ak salaam hmm. te it sa am am dina yéem ñi nga nekkal mooy da nga koy atte ci ba tey diw daa jékki-jékki am ji rek. Ah. daa daa def nangam ak nangam te maanaam mbirum jaara daf ci doon loo xamante ni eh, ñi koy ñi koy ñi koy takk dañ koy war di bàyyi xel. Hmm. xam nga per dafay dox ci wàllum nu nujoom. Hmm. ak it wàllum tabixa. Hmm. nit ki da ngay bëgg jaaro nii rek dem ba ci visiteur bi nga waa ko fekk fa ñu defar xëy rek nga jël benn jaaro takk ko sa loxo. ku ci nekk ne am na per boo war a takk am na lu méngoog ah, say mbir. ci nit ñi. am na lu méngoog say mbir léegi nag yow la nga xamante ni xamoo ni moom méngoog say mbir nga dem wuti ko fële nga takk ko man ngay gis man maanaam man ngay gën a net yi jafe-jafe wala it maanaam nga nekk ci xat yi doo xam ko waral yow looy wax rek man de sëñ bi moom euh, man daal temps yi damaa ne ci jafe-jafe ci nangam nangam fekk yow am na lu nekk sa loxo bi moo waral loola waaw léegi nag mbirum jaaro nañ koy liggéey lenn lay doon bu fekkee ne maanaam nit ki bëgg na caa am lu wér hmm. loo xamante ni boo ko takkee daf koy jariñ hmm. da ngay xool ku ko man maanaam nga dem mu liggéeyal la ko liggéey ba na ngeen lay demee sa tur lay doon ak sa turu waajur wu jigéen bu loolu jàllee maanaam nga xool wàllum tabixam xoolit biddiwam na méngool maanaam nga liggéey ko boo ko defeelee bu ko takkee kenn mënu koo tee am dina am wërsëg dina am bere lépp lu mu dugg dina suñu borom dana teg loxoon te xaalis bi bu ñëwee dina taxaw xaalis bi bu dikkee dina dina dina toog maanaam loolu amul benn sikki sàkk boo koy takk di ko gis ci kàttanu yàlla dafa am nag lu muy bañ waaye la bañ nag képp koo xamante ni woo nanu maanaam danañ la ko wax waaw la nga xamante ni maanaam mooy toj jaaro ba bu la yitteelee ba nga woonu dinañ la lii moo koy toj mbirum jaaro daal ni nga fi gis yëpp sénégalais ko ci gis ku ne mu yorub jaaro mu ngi mel ni maanaam exemple nga jékki-jékki woon demoon ci dem ci rajo bi woote daal ne suñ fàllu yi nekk Touba yëpp laa bëgg maanaam ñu dikk ñoom ñëpp ñu dikk dajaloo jumaa ja ñëpp ay suñ fàllu lañ waaye ku ci nekk ku ne nag am na sant am na ndey am na baay am na fay bu mu bokk la jaaree demee maanaam bëri na waaye bokkul daf ci amu d'accord mais yow bokk nga mu ñi si ñi si ñi si teg tànk moom bokk nga ci li ma lay wax kay maanaam amul demal ma ñëw buñ la ko liggéeylee boo ko takkee da gis mais est jigéen ñi mën nañ kaa takk damay gis souvent jaaro mhm. mhm. mhm. xam nga jigéen ñoom yow yow xam <laughs> ñoom seen seen i ciib-ciib dañuy bëgg lu rafet bëgg lu tuuteeg yu demee noonu jigéen ji maanaam jaaro des na ci liggéey loo xam góor dina ko takk di ci liggéey loo xam jigéen dina ko takk waaw am na ci xeeti jaaro yoo xamante ni xàqale doon waaye nit ki maanaam loolu dañ koy nàndal nandal gi nag boo ko déggee mooy que nga liggéey loo xamante ni saafara lay doon nga def sa jaaro ba sangoo ko ay fan yañ la wax hmm. nga doo ko takk jaaro ba soo ko takkee lu simple lay doon lu yem ci loxo te ku ko gisi du ko foogee woon ni maanaam yow jaarom nangam nga takk fekk ni mooy liy defal say mbir am na ci côté jigéen ñi bu dee ci côté góor des na ci liggéey loo xam jaaro lay doon xaqiqa am na ci loo xam jaaro yoo xam ne du doon xàq ndax ko ci nekk sa mbir la mi laaj ñii dañoo war a takk per ñii waruñoo takk per ñii bàgg lañ war a takk hmm. noonu it ba tey noonu la ñuy liggéeyee seen maanaam xoob ci wàllum am am ak ci kaaraange foo nekk ni ñi dinañ la bëgg di nga yëkkatiku suñu borom taala di maanaam fu mu toll dinañ la yëkkati nit ñu lay bàyyi xel hmm. te boo waxee dinañ la dégg insha allahu rabbi waaw te boo ko takkee it ndem soob na suñu borom ca kanam rek ngay jëm xanaa nga tàggoog moom hmm. waaw damaa yaakaar ne Ousmane Sonko moom daa am benn bu mu ciy jiital ci yi nga wax nii hmm. Ousmane Sonko jotu lañ jokkoo de wala aw nitam déedéet jotumaa jokkoo moom jotumaa jokkoo it lu bokk ci moom waaye loolu ngay wax jiitalit lu am la mhm. amna ci façon yére yu ñuy jiital yoo xam ne ka yow bu la nit ñi xol dañu gis ni manam sa digg dara nekkul ñu xol sa loxo gis ni manam tokko dara waye fekk ni amna lu nekk ci biir loo jiital seulement mystique waaw seulement mystique yo xamanteni manam maanaam lu ñu sol la ñaara ñi nga xamanteni ñi ngi nekk ci état bi lu ci bari ñom dañ koy faral di yor ak ñi nga mhm. xamanteni manam ay homme d'affaires lañ ay commerçant yi manam ak ñi nga xamanteni manam dañuy dem ak dikk ñu ci ëpp dañ dañ dañ dañ liggéey dañ koy wax loolu nag ci li muy jëriñ mooy maanaam feeg yaa ngi maanaam feeg yaa ngi nekk ci milieu bi nga xamante ni maanaam mën nañ koo tuddee milieu business bi mhm. amul dara loo xamante ni maanaam dina la lor tey say mbir dana gën a jëm kanam d'accord waaw d'accord incha allahu rabbi moom xam naa ne bis bu audience amoon euh, fële mhm. <laughs> diggante Macky Sall Sonko xaw ma ko ci dàq tegale ñoom ñaar <laughs> ku nekk si mhm. sëñ Fallou ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, sëñ Fallou mu mel ne nit ñi da si mhm. am ñoo xam ne maanaam xaw ma xaw ma dañoo bëri bayre xaw ma coow da leen a topp mën nañ cee tudd ku si mel ni euh, ku si mel ni Wally Seck mhm. ku si mel ni ab Abdoulaye Wade mhm. ku si mel ni ay Queen Biz mhm. maanaam euh, moo xam ñu am alal wala ñu new ñu néew alal booy jinne gis gis gis nañ ko fi tey loolu noonu lan la maam loo dugg rek coow coow coow bari ca bayre bayre la de waaw bayre dafa am bayre dafa am ñaari façon dafa am bayre boo xam ne dafa ànd ak am am maanaam da ngay siiw ba pare di am am na bayre boo xam nag bayre bukki la mooy lu dikk ñu tudd la te yow demee woo nee na loolu dafa am te ñaara boo benn ku ko jëfandikoo it maanaam na ma yàlla jéggal ci kàddu gi foo toll ci jafe-jafe ngay nekk. d'accord doo am jàmm mukk doo am jàmm mukk waaye nag bayre li nga xamante ni maanaam moo mat a am muy bayre bi nga xamante ni day dox ci nit ñi bëgg la ba pare di la indil am-am. Hmm. muy bayre boo ànd ak fooqet. waaw tey ji da ngay gis nit maanaam exemple nga gis nit am ci moom cofeel bëgg ko. Hmm. yëkkati ab oto may ko ko. wala nga yëkkati maanaam xaalis bu bëri jox ko ko lu waral nga def ko danga koo bëgg léegi bëgg googu dafa am lu nekk ca ginnaawam lu la attiré yow ba tax nga mën a jël sa alal jox ko ko te yàlla tax te dañ ci ànd ak fierté koy jox amaana mën ngaa demoon këram di ko jox fekk mu naana muy fanaa muy maanaam mu yendoo nelaw suba ba ngoon nga toog di ko xaar ngir mu génn rek nga jox xaalis bi boo ko jox sa xool daf ciy féex hmm. loolu bay rek bu ànd ak leneen la hmm. waaw loolu dafa am ñu ñu gis euh, euh, fan yi hmm. bërki démb rek bërkaat démb diggante euh, Sanekh Baye eh, Fall ñi ngi jokkalante ay kàddu hmm. ya ma def li ya ma wax li yego nga sama feebar yego nga sa feebar hmm. eh, ba sa neex ag ci di lim ay nit ñoo xamni ne dañoo bokk si ñoom ñu melni ni Aziz hmm. ñom day Kumba ñom ñep kenn kenn ku si nekk commençant ko ci moom kenn ku si nekk muy wax ay jàngoro yoo xam ne yaa ngi koy wéyaale mm-hmm. euh, di tontu Baye Fall mi nga xamante ni jamono ji ñuy wax ak ak yow mm-hmm. bët ji mën nañ jàpp ne daanaka dafa xaw a muuru mm-hmm. daanaka gisatul euh, mu mel ni seen mu mel ni nit ñi siiw ñu daal xëy na li ñuy wéyaale dafa dafa dafa doy waar loolu siiw gi la wala wala wala làmmiñ bari si ñoom rek daf ci am xeeti beere yoo xamante ni bu ko nit ki jëfandikoo di am beere de man nga it am waaye ginnaaw bi mën na laa indil ay jafe-jafe daf ci am lu koy njëkk ci nit ki booy def ci moom bayre muy waatul bi tamit ab waay bi xaa hmm. néeg booy dugg da ngay buntu ba tey ndabit bala nga caa def dara bu taxee da koy raxas ba mu set nga def ci loo xamante ni maanaam après nit ñi dañ ko gis xemmeem ko mën caa jëfandiku mooy waral loolu maanaam nit ki bu fekkee ne yow am nga bayre mu ëpp sa kaaraange mën na laa indil ay jafe-jafe d'accord waaw mën na laa indil ay jafe-jafe hmm. loolu moo waral loolu motax fimne ni ñaara ñi nga fi gis Sénégal ñu ci ëpp ñu leen ñuy tudd hmm. ñaara da ngay jek jek dégg leen ñu nekk ci ay jafé jafé wala ay yenn fièvre yi fi leen yu kenn xamul manam ñu jek jek dugg ci wala hmm. manam bayra bu andu ta kaaraange la bayra bu ko nit ki wu da ci fi daf ci boole kaaraange lolu mooy wala manam mucc gi mën rafet lolu tay ku ci comme ku ci melni Baye Fall bi mom sax ci biir waxam xawna na ci na ju ñu mel nee lolu suma digon ma di ma di mbeur xawma manam hmm. wax jeeg coow leeg yooyu <laughs> waaw donc moom xëy na dafa am côté boo xam ne da ciy xaw a sàggan ciy gàllaaj loolu loolu dafay am mooy loolu la ñuy wax bayre bukki rek tey ji man fi ne ni am na bayre boo xam bu ma ko bu ma ko liggéeyoon ah. maanaam ñu defar saafara si ba pare teg ko mhm. maanaam ñu am lu ñu jël ci dëru bukki ñu bind ko ci dugal ko ci ngonul ginaar mu def fa juróom-ñaari fan mhm. su paree ñu lakk ko xoyam ko ci saafara si nga di ko sangoo maanaam tama du la ëpp bu moom di nga siiw moom foo romb coow la ne fa foo romb coow la ne fa tey noonu ngay siiwee noonu ngay amee di nga siiw di nga am waaye nag loolu ba nga koy defal nit ki def ci am lu ciy jiitu muy kaaraange dañu faral di wax ne maanaam bayre sangoo ko moo gën ci mu mu maanaam mu sangoo ko mu nekk ci nit ñi maanaam yaramu nit ki moo gën hmm. ndax dafay gaaw a saf hmm. foo ne mu topp la waaye kaaraange di ko takk dafa baax ci nit ki foo jëm mu topp la waaw d'accord loolu leer nañ kon nag gars euh, xam ngeen yëf yi mu <laughs> mu demee dégg ngeen dégg ngeen koo baax. Euh, tey euh, li ma koy jeexalee rek mooy dafa am garab gu ñuy koo xam ne sëriñ dañ koy faral di di moom ci àll bi nag dafa xaw a nag. Mhm. mais man am na am na yu ma ci gis. ñu koy woowee rey rey donn. rey donn waaw yow sax yaa wax tur bi léegi. Mhm. ma la expliqué garab gi ni mu demee nag damaa gis sëriñ si. Mhm. ñu baree bari di dugg ci àll bi di ko wut. nga ne ma loolu ray donn luy rey donn. maanaam rey donn rek dafa wuyu dafa dafa maanaam dafa wuyu tur wi. muy nit dina nekk ci bërëb ne fa di doxal. Mm-hmm. ba nit ñi commencé koo xam. Mm-hmm. nga jekk jékki gis mu jigéen fa keneen di ko toog fa. ci domaine bu mën na nekk waaw ci domaine bu mën a nekk. loolu garabu roy doon dañ ko ciy liggéey est-ce que sëriñ si kon amuñu ay ray doon ñoom seen biir des fois gis nañ sëriñ buy def bës ba yàgg rek <laughs> mu effacé wu keneen ñëw <laughs> waaw loolu man naa am ndax li nga xamante ni nit ki xam na ko di ko liggéeyal nit ñu di ko gis xëy na moom it mën naa dem ko boppam ñoom sëñ Bassirou Ndiaye kenn déggatu leen waaw waaw loolu <laughs> maanaam loolu loolu lu mën naa ne eh. eh. loo xam yow xam nga ko di ko liggéey eh. ñu ngi koy defal ñu ngi ci gis résultat amul demal ma dikk hmm. mën ngaa demee ba toll foo xamante sa xew laaj ko nungu ko nga defal ko sa bopp loolu day fay loo xamante lu am la waaye rey dond moom loolu ma la ci wax dafa koy def nit ku ne ci bërëb ak nu mu fa mën a nekkee mu jékki-jékki jugee fa keneen dikk toog hmm. maanaam te nu fi yomb sax muy ministre lu mu mën a doon dañ koy digg liggéey ci rey dond dañ koy liggéey ci jigéen goo xamante ni maanaam mënoo am borom kër hmm? waaw léegi nag garabu rey dond li ñu ciy wax léegi nag comme moo ci ne hmm. yëkkati nit moom moo ci na a gaaw moom ku të tëj ku ci dugg ku ne maanaam mënoo fexe maanaam ku ci ku ci dugg ku ne génnaat. Mm-hmm. moom ndox si du xam lii génn nit ñi. soo ko ko defalee day am borom kër léegi ku góor it ku munta am soxna boo ko defalee dafay am soxna ci li muy dox bëri na ci bay rek maanaam ci ci ci kaaraangeeg. maanaam ci faloog lépp rey doon daf yi dox. d'accord waaw bëri na ci ay yoon. d'accord waaw diggante ñaar ñaari ñaari wujj yu wujje mm-hmm. ndax foofu rey doon am na fa place xam nga ñu ngi ñi ngi xeex rek na fi diw fi diw jóg maa war a toog. loolu day dugg ci ba tey maanaam nit ko fekk ci place ak nu mu fa nga jëlee ko fa toog fa maanaam day dugg ci diggante ñaar ñuy wujjee. d'accord waaw. tey tey boobu boo ginnaaw nag euh, information bi nit ñi xam nañ ko nii. Mhm. Euh, ñi nga xam ne xëy na amuñu soxla ci jëlee nit ci place. Mhm. wala jëlee ko ci këram wala jëlee ko feneen. Mhm. Euh, waaye bëgg nañoo ñoom aaru. ba nit ku ñëw ak sa lay doon ni na mën a dara. loolu mën naa ne. loolu lu mën a nekk la. lu mën a nekk la. maanaam da am na am na nu ko nu ko nu ko mag ñi faral di waxee daal daw daal te ba ami tànk waaw. d'accord te am na ci ñoo xamante ni maanaam maanaam ñu la jugalee. Hmm. fi ne nii nit ñi dañuy bàyyi xel loo xam maanaam am na ti loo xam ne bàyyiwuñu ko xel fi ne nit ki nga xam ne jug na liggéey nit. Hmm. néewaat na nga gis mu doon koo xamante ni maanaam daf koo def fa saa si rek am résultat day ko jàpp tëbaay. maanaam moom dafa jàpp di def. tëbaay mooy waral bu mbir mi demee ba kaate pour ñu dindi ko ci dootul yomb. fekk yëf yëf bari sa yëf yëf bari ci yow léegi da dem ci sëriñ si di leen fay bëgg ñu dindi ko léegi nag koo ci dem ku ne maanaam danga koy fay mu defal la dara doo gis nga jógee foofu jàll fa ne da ngay dem ba jeexal rek toog jàpp ci yàlla daw ca ba ngay ami tànk nit ki ci bi ngay am jàmm dara dalu la ci ngay maanaam defar sa bopp ba lu dikk bala fi mhm. waaw kon tey daal am na garab goo xam ne wala gàllaaj goo xam ne tey bu ko bu ko nit defee ci yaramam muy góor muy jigéen mhm. lu ñëw moom du man ci yow dara kaaraange moom dama koy liggéey nu ne mhm. bu la neexee maanaam bu la neexee doo takk sangu ngay def bu la neexee maanaam sa kër nga koy def hmm. kaaraange moom ci nu ne laa koy liggéeyee nu ne noob nag duñ ciy yëngu bu baax mais eh, noob dégg naa dafa garaaw kër yi dee yu bare bare bare noob gu fanaan leen rey <laughs> waaw xam nga daf ci am façon noob yoo xamante ni day rey hmm. muy noob yi nga xamante ni dañ koy liggéey ay sunguf hmm. daf ci am façon noob yoo xam ne làkk yi dañ koy liggéey léegi nag saaru noob yooyu wërta fanaan waaye nag comme xas dugg ci sa biir moom la ko fay génnee du yomb ah waaw te boobu da koy def doobu man du ma ko liggéey doo ko liggéey waaw noob danaa ko liggéey ci beneen façon hmm. boo xamante ni bu jàppee nit ki hmm. maanaam dina la bëgg dina la topp dina la déggal tey du doon loo xamante ni da ngay jël say sunguf ak say affaire jaxase ko jox ko mu lekk ko ah? waaw ndax yooyu ngay jaxase jox ko ko mu lekk ko lu am na de noob la gu ñuy def mu jàpp hmm. waaye bu fanaanee day mujjee dootul doon noob poson lay tudd d' accord dootul noob moo tax muy rey d' accord waaw accord d' Euh, sëñ Fallou ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la jégalu sa temps bi ñu jël. Mhm. tey lan ngay lan ngay tàggatoo lan ngay may gars waaw gars yi de moom liñ leen di tàggatoo mooy maanaam ñu gën a bàyyi xel ni ñaan lu am la. Mhm. te ñu bàyyi xel ñi ñuy ñaan loo te xam ni maanaam ak ñaan na ma koy faral di waxee rek. Mhm. du ci grand bu bu rëy. du ci ab juddu. lu nit ki di jàngale xam ko. ndax léeg-léeg ngay seetaan internet bi gis fi ñoo xam dañ lay jëlal xaatim garaawal la ko garaawal goo xamante ni yow boo xamul xaatim sax danaan yii man de xaatim xanaa moom mm-hmm. moom moom mooy loolu fekk ni xaatim dimeewut nañ koy garaawalee mm-hmm. loolu lu ñuy jàng la mm-hmm. man ko di ko def yow man ngaa mën a xaatim di ci def li nga ciy def di gis résultat te du tee ngay liggéey dafay ñaari version yu bokkut yaa ngi comprendre mën ngaa mën xaatim di ci def di ci dindi te du tee nga yëngu ci leneen di liggéey hmm. léegi nag kon loolu dafa tey dafay atte ni maanaam mbirum xaatim lu ñuy jàngal xam ko mi ngi mel ni ñun la lan mooy sa numéro téléphone nga ñu nangam mooy sama numéro ko jot la direct noonu la xaatim demee xaatim nag maanaam nit ki pour nga mën koo maîtriser mooy da ngay xam li ñuy wax xilmu xilmu xuroof hmm. xam maanaam xam-xamu xarat hmm. man xam bi diwu nit ki waaw yooyu maanaam bu dajoon loo ci nit ki pour nga tëgg xaatim loo ci bëgg def da nga ko mi ngi mel ni tey exemple nga ne baaba dama dama ko bëgg a yëkkati mhm. maanaam nga jël turu Babacar xadar ko mhm. jël turu waa jërëm xadar ko mhm. jël aaya bu ñuy wax illa yasudu kalimu tayyib wala amalu saalihu yarfahu jël ko maanaam jëlaat wa rafaxnaahu maa kaanan xalliyan jëlaat wa rafaxnaa laka shikraka am turu yàlla yoo ko boole loolu nga xadat ko ba mu doon benn lim nga tëgg ko mu sallas wala mu xamas wala mu rabba léegi xaatim ba nag yaa xam maanaam Babacar moom biddiwam suuf maanaam tabi xam suuf la wala ngelaw wala sawara wala ndox léegi la mu ca laaj nga defee ko noona loolu nga sol ci xaat ñam bi benn lim la nga teg ko nële loolu boo paree boo yoree sa kus boo ko dóoree day dox mi ngi mel ni nga gaara sa bala yor sa caabi ji boo demee boo ubbee day boo ubbee maanaam boo ubbee dugg toog boo cuqee day tàkk nga dem ko ci yoon bi daal moom amul amul sikki sàkk loolu du mbirum baatin loolu saayirmaa la lu ñu jàng la man ko léegi nit ñi ñoo ko jël maanaam garaawal ko ngay gis ci intérêt bi ñuy poste lu ñuy xam la rek def ko mu dox aajowul ci aajowul ci damay ñaan damay nàngam tey ji yow bu la neexal nga dem jàng ko léegi maîtriser ko di faj aajo waaw te du la tee lekk du la tee naan da ngaa fekk li gars yi gën a garaaw nga bëgg kaa oyofal nag. <laughs> maanaam ni bay wax loo xamante ni. Ah. maanaam ki nga koy waxal xamu ko dana ko jaaxal. waaye am na ñoo xam bu ñu ma dégg xam ne li may wax noonu la demee. xam nga sëñ Fall lan moo tax dafa bëri sëriñ soo xamante ni ñu ngi fi. Mhm. ñu leen di woowee ay sëriñ. Mhm. ñi mbooloom di fees del te ñoom lii ngay oyofal nii ñoom mënuñu ko. maanaam xam naa si ñu bari ñu siiwa siiwa siiwa siiwa. waaw kon mbir maa ngi noonu <laughs> mais ñoom ñoom mënuñu loolu te ay sëriñ la waaw bëri na fi ñuy woote woo mbirum xaatim maanaam mbirum ñaan ni ñu topp leen dara leen te wallaahi la asim laa lay génne faatixa bu yegg mënuñu la koo bindal lépp lu ñuy teewoo léegi dañ koy bindal ji bi ci di ko jox ñeneen hmm, ay kon ay courtier sëriñ lañ courtier sëriñ lañ maanaam ñoom ñoo yàq mbirum ñaan gi léegi nag fi mu ne nii maanaam wàllum wàllum xawaatim li ma ci expliqué léegi doonul loo xam mbirum bëtin loolu sayirmaa la nii ni nga jëlee sa big bii jël sa kayit bi bind mhm. maanaam bind li bi bind teg ko ne noonu la xaatim demee boo xasee xam boo mënee xadat turu nit ki mhm. mën a génn biddiwam maanaam mën a jël tur turam ak turu yaayam lépp nga xadat ko teg ko jël ay alxuraan yo ngi koy boole jël turu yàlla yo ngi koy boole lépp nga xadat ko mu jox la benn lim ak la nga bëgg ca moom mhm. jumla ba maanaam lépp nga xam ko sol ko ci xaatim bi boo ko sëfee wala boo ko suulee wala boo ko takkee wala boo ko dajee fii tàng soo dóoree mu dox loolu ab lim la boo paree sa rek nga yor tur yo ko tëggee ngay dóor mu dox mi ngi mel ni oto buñ gaaram yor caay bi li ma la rek boo ubbee boo duggee boo toogee boo taalee day dem loolu nag loolu fi ne nii doonul batin sayir maa la nii lu ñuy gis d'accord waaw d'accord euh, sëñ Fallou ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax tey bu ñu doon wax wàllu football fii ci Sénégal mhm. dañuy mën mën ngaa tëb nga Sadio Mané ko ku ko mën la mhm. wala El Hadji Diouf kat ku ko mën la mhm. wàllum euh, athlétisme am Mbacke Thiam jamonoom dañ naan ku ko mën la ak keneen kay Mamadou Diaba et tout ça mais tey wàllum sëriñ léegi est-ce que mën nga maa wax fi nga taxaw juróomi sëriñ ñu daal mën nañ li ñuy liggéey man de su ma la su ma waxee sama digganteeg yàlla rek ñi ma gis ci internet mënu ma yóotu turu kenn am na it ñoo xamante ni xam naa leen ñi ngi nekk biir Touba hmm. maanaam ñaan moom nit du leen ci dab hmm. waaw ñaan moom mbir nit du leen ci dab hmm. te man mii sama jëmm ji di wax ak yow xëy na génn moo mënut te ñàkk rek ma génn naa taxaw ci internet bi di wax waaye bu doon loo xam lu nu gën la duñ ko def waaw ndax la ñuy def xam nañ ko ñi nga ciy jëriñ ñi ngi ci sant yàlla bu wér te mën nañ ko macha allah waaw léegi nag fi ne dañuy toll foo xamante ni bu nit ñi génne ci net bi fu ne ñu dugg fa di wax hmm. di bëgg a rey nit ñi hmm. day aaja maanaam nag ñu génn leeral léegi nag ñoom ñu xàmmee xam fi ñu teg seen tànk su loolu jàlleen ñeneen ñi mel ni man te la ñuy wax ñu xam ko man koo garanté ñu génn wax hmm. bu ko defee ñi xamul dinañ dem toogi ne le xool leneen lu ñu def waaw euh, màggal Tuubaa ngi ñëw gaa yi dinañ activité yu bare bari ko arrêté Euh, rassemblement yeeg ñu moytu ko daal mhm. loolu la président Macky Sall wax gars yi gars yi yor wàllu santé bi loolu la ñu wax mhm. tey jii bu ñu noon ko màggali corona ndax di nga màggali ñun moom pour wax ji gën a gaaw buñ doo bu doon dañuy raam di màggal sax dinañ ko def di nga dem <laughs> maanaam bu doon ku dem dee di nga dem dox di dox di magali, ram di magali, dugg ci atay di magali, magali. rek waaw bi ñu njëkkee sax mooy dugg ci atay di magali, bu mun ta nekk ñu dox di magali, bu nekk ñu di magali waaye corona ak a ci ah, kay moom corona ak lépp ci yem xam nga ñun ñi ngi Touba ñooy dalal gan ñi. am na ci ñoo xamante ni biir na ma ni moom buñ ñu lee woon boo leen màggalee dee dañuy ñëw. ñoom dañ dikk te dee waaye xam naa ñu dañuy dikk moo tax may la dugg di màggali dox di màggal wala raam di màggal rek waaye dañuy màggali. ok jërëjëf sëñ Fallou. kontaan nañu bu baax a baax